xeexuñu Fatim. xeexuñu. xeexuñu. Aline dugub bi yeggul yooru bi yeggul dugub bi yeggul dafa yooru. dafa yooru. dafa da koo bëgg a jàpp. dafa mbër bu xeexoon am amante eh dafa mbër tarxe. Aline Seye Junior. ndax nañ ko Fatim. Aline Seye Junior dafa mbër. Aline Seye Junior dafa mbër. dafa mbër dafa mbër da koy daan dafa mbër da koy daan. ma koy dóor da koy daan ma koy dóor. Aliou Seye da ngay daanu. lan la. lan la lan la. am na ko sart. pour am. léegi dafa mel na xeex bi aussi moom lay daw. waaw moom lay daw. jël na ko jël na ko jël na ko jëlaat na ko doxoy daan daan na ko. Tapha Mbeur erreur bi ñetti yoon la ko def ñetti yoon la ko def Tapha Mbeur erreur bi ñetti yoon la ko def Fatou. juum na daan na ko Alioune Seye Junior daan na ko jël na ko jël na ko jëlaat na ko doxoy daan daan na ko. Tapha Mbeur erreur bi ñetti yoon la ko def ñetti yoon la ko def. dafa am mbër erreur bi ñetti yoon la ko def fàtte. juum na daan na ko.